jërë ngeen jëf salaamaaleykum mbokk internet yi seetaan GR Info TV la chaîne des valeurs la chaîne qui rend visible tout ce qui invisible tey nag ñu ñëwaat ak yéen ci seen benn émission entretien avec tey nag ñu dalal ki nga xamante ni moo di Alpha voilà nekk euh, membre ci commission assenissement waaye tamit mu nekk président euh, commission assenissement waaye tamit li yore lépp li nga xamante ni mooy wàllum éclairage public tey Alpha Diop la ñu toogal fas yéene waxtaan ak moom lu bari ci gestion commune bi xeyna duma guddal dama koy jox rek mu daal di nuyoog ñi koy seetaan bu ko defee ma ciy jaare di baalu ñëpp ak ci tabaski bi ñu jógee waaye tamit di ci baal ñëpp ak Alpha Diop maa ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur dañuy santaat Seexul Xadim bu baax a baax a baax. Hmm. waaw di commencé nuyoo bi nag di nuyu waa Guinaw Rails Nord yëpp. Hmm. waa te di leen baalu ak te di leen baal ak di ñaan suñu borom boole ñu baal li ñu sumb lépp suñu borom mottali ko. te mu bi ci Barseeru jërëjëf Alpha dañuy tàmbali suñu waxtaan ak yow rek ci premier point bi Alpha nan ngeen dundee li nga xamante ni moo di inondation bi nga xamante ni mu ngi ñëw euh, en tant que président commission assainissement te ku ne assainissement wax wàllum nawet nan ngeen ko dundee. waaw commission assainissement moom hmm. yaakaar naa ni euh, wàllum nawet moom yàgg nañ ñu fay fekk. Hmm. ñuy xeex ak moom kon tey da rawati rek. Hmm. Euh, nawet ku ko xam-xam ni du domaine nu maire sax. Mm-hmm. du domaine nu maire yi domaine nu état la. Mm-hmm. mais nag du tee maire yi li nga xam ne da see war a def loolu dañuy forcer mu def ko. Mm-hmm. ba yàlla dogal na yi ñu génn xeex nañoo moom ba am ci ay mun nañoo wax ni am nañ si résultat parce que ñi si génn seen kër yi bariwul. waaye bii di ñëw it ñaan nañ yàlla gën cee am résultat yoo xam ni. ba kenn du génn. parce que nawet dafa nekk loo xam ni kenn mënul xam. maanaam tant que ñëwul ba yegsi rek. Mhm. nooy doxeeg moom ba tax préparer nañ nag ay PVC yoo xam ni euh, maire sortant bi moo ko fi defoon. Mhm. am na ci yoo xam ni bougé na am yoo xam ni maanaam toj na mais yooyu yëpp ñu ngi koy defaraat. Mhm. parce que amul benn kanaal boo xam ne nag maire actuel def na ko. mais ñi ngi defar yi nga xam ni fekkoon nañ ko fi te muy li nga xam ni dafa yàqu. ak li nga xam ni dafa fat yooyu yëpp mun naa wax ni genn wàll gi. dindi nañ ko. Mhm. léegi Alpha ma ñëw ci wàllum euh, canalisation yi ndaxte xam nañ ni euh, inondation nekkul nekkul domaine maire mhm. mais maire moom la ñuy gis mhm. lu ci bari ci moom lañ ko mën a joytu mais ñu gis ni bi fi maire bi fi nekk nekkee ba léegi comme jéego yi nga xam ni maire sortant bi def na ko même bu dul dara teg ay tuyau PVC mm. pour mën a évacuer ndox mi lan moo waral loolu ñun mënuñu ko gis ci ci magistère am boobu ba léegi te gis na nañu aussi euh, fan yi mujj wala at yi mujj mm. nawet bi daf ñuy sonal ndaxte bépp ndox bu jógee ci teer bi mm-hmm. day dugg ci biir commune bi mm-hmm. lan moo tax jéemu cay def ay jéego. waaw premièrement rek dañuy wax ni damay njëkk a daal état Sénégal. Mm-hmm. parce que état Sénégal moom mën nañoo wax ni respecté wuñu waa ginaaw raay rawatina ginnaaw raay noor. bi dëkk chaque jour man loolu dama parce que état Sénégal respecté wuñ parce que buñ ñu respecté woon teer bi nga xam ni suñu biir dëkk la jaar xaaj ñu ñaar hmm. tas ñu ñii dem fële ñii dem fële waroon nañ ñoo respecté si loolu deuxièmement rawatina ñu jël seen ndox yoo xam ni si teer bi di fa génn ñëw di dugg si biir commune bi nga xam ne fi lañ dëkk di dugg suñu biir néeg yi yamul si mbedd bi rek mais hmm. suñu biir néeg lay dugg hmm. bañu taa hmm. terre bi jéemu ci benn solution appayage bi même chose mais est ce nekkul ni est ce nekkul ni yéen yéen a deful ay jéego yu war a tax état bi gëstu leen waaw parce que man mun naa wax ni maire actuel bi fi nekk xamul dara si maire yi loolu daa xamul si maire yi. mais bu xamul maire yi est ce que tamit entourage am conseil municipal yi est ce que ñoom tane wuñ ko ci gestion maire yi ñu bi ko war a jàppale. Mhm. man si sama gis-gis naa wax ni jàppale wuñu ko parce que seen intérêt personnel la ñuy xool. Mhm. ndax euh, yaakaar naa bu yàggul dara dugg nañ dem nañ ci télé wax ci ñëpp dégguñu. Mhm. parce que. maanaam gestion bi maire di doxee te bi ñu demee ba xool ba xam ni xam nañ ni maire bi lii lépp du du lii mais ñàkk xamam la te ñi ko wër war koo wax wala war koo teg si yoon teguñu ko woon si yoon ba yàlla dogal na nag ñun mun nañoo wax ni fan yi gis nañ loo xam ni mi ngi commencé ñoo déglu ñun ñi nga xam ni commune bi moo ñu ñor du suñu intérêt personnel mi ngi ñuy déglu di ñu laaj suñu xalaat ak tamit di ñu wax fu ngeen bëgg ñu doxalee ko bu dee moo gën si commune bi ñu dox mais est loolu nekkul loo xam ne dafa taar maanaam lu yéex parce que pour man moom ba mu xamee ne xamul dara ci xamul ci maire ci la waroon teel a waaye ñi nga xam ni xam nañ gestion maire ni muy doxee mais du bàyyi ba nga xamante ni toog na ñaari at wala lu war a mat ñaari at ñuy doog a déglu est-ce que nekkul ne loolu dafa yéex parce que tamit gis nañ ni man boog en perso man gis naa ni ginnaaw raay dafa am tuuti recul est ce que nekkul ni looloo ko waral. waaw ah, mun mun nañoo wax ni nag euh, euh, boo xoolee retard nañ. Mm-hmm. retard ñu mais nag retard lañ gën a jege. parce que yaakaar naa ni ànd nañ ci terrain bi yooyu ñuy liggéey yëpp waroon nañ ko liggéey bu yàgg. bien avant. Mm-hmm. waaye nag comme ni ma la ko waxee rek mbir comme maire bi mun naa wax ni ñooyam parce que ñu ngi ñun ñun ñëpp ñoo duggandoo si maire yi. Mm-hmm. parce que mus na conseil municipal. mais nag. comme yàlla dogal na ba bi ngi indi xelam léegi man si sama gis-gis loolu dinaa ko si encouragé. Mm. parce que li gënoon rek mu tëxlu topp ñi nga xam ni ñoom la jàpp ni ñoo ko war a teg si yoon seen interpersonnel la ñuy xool. Mm-hmm. comme yàlla dogal na mu préparé pour ñëw ànd ak ñun si liggéey bi ñun ñi nga xam ni commune bee ñu ñor ñun ñu ngi si woo population ginnaaw bi noor yëpp képp koo xam ne rek commune bi ñor na la. ñu ngi koy woo pour ñu xool solution boo xam ne mooy tax ba nawet bi ñu sonal bu ñu génnee si nawet ñu xool li nga xam ne bis bu nawet di jotit dootuñu xalaatati nawet mais beneen leneen la ñuy xalaataat pavé yu nekk si biir gox bi mais lu dul ay ndox fu muy jaar ak mhm. dem léegi est-ce que maanaam sama sama gis-gis moom bi nga xamee ni yàlla dogal na mu jël mairie bi est-ce que mënutoon a jéem a tendre la main ñi euh, temps la main ñi nga xamante ni ñooy euh, régime bi fi jóge woon pour ñu ànd liggéey ci ci ci domaine boobu noonu bu ko defee mu xaw a am tuuti sax maîtrise ci ci wàllum gestion mère. gisoo ni moom loolu war na mën a nekk. waaw loolu moom lu war a mën a nekk la te man dama jàpp ni sax dafa war a nekk. Mm-hmm. ndax ñi si war a dox man boo première si man man maa ngi ciy dox li ma ci war a dox. Mm-hmm. ndax loolu noonu c'est normal ndax li ñuy wax ku la jiitu si néeg bu lëndëm moo la mën a wan fi ngay toogee. ñaareel bi nag mooy lépp loo gis rek parce que ñun mun nañoo wax ni duma wax Sénégal mais commune Guinaw Rails Nord comme fi laa laa maîtriser. Mm-hmm. li ñu gën a politique politicien. Mhm. parce que dañuy ñëw nekk si benn affaire boo xam ni alors que ñu munoon a teg loxo mu dem mais dañ koy téye. Mhm. pour rek ki nga xam ni maanaam moo war a doxal mhm. pour mu lii mais man dama gis ni maanaam am na loo xam ni première si dafa war a woote woo ñëpp. population bi ñëpp kii maire muy ba si maire sortant wak ki bokkul si moom ak ki bokkul si moom bu dee bëgg naa doxal commune bi ne ñëw leen ñu liggéey commune bi. su ko defee ki nga xam ni muy maire sortant wa keneen ak keneen ki bokkul ki bokk si commune bi ta nekkul daray yi mhm. war naa mën a ñëw sans xaar ñu naan ko jàpp si loxoom pour indi ko mhm. parce que commune nekkul ni benn nit a koy doxal déedéet mhm. maire actuel Valdiodio Ndiaye moom la ñu fal si commune bi mais Valdiodio Ndiaye moomul commune bi Valdiodio Ndiaye ëppale wuñu si commune bi dëgg la moom lañ jiital mais nag ñun tamit war nañ tamit saa su ne bu ñu gisee loo xam ni war naa mën a yàq commune bi ñu sol suñu daal dem ba ci moom ne kat maire actuel lii day yàq commune bi te duñ ko nangu. Mhm. parce que loolu suñu devoir la ndax première si man man damay wax li nga xam ni gis naa ni ay jafe-jafe la si commune bi ma wax ko ñëpp dégg ko première si moom laa koy njëkk a wax bala ma koy wax askan bi. muy lan parce que muy jafe-jafe yooyu jafe-jafe yi mooy li nga xam ni canalisation yi nga xam ni. Mhm. waroon nañ ko curé bu yàgg. curé wuñu ko waa ONAS ñëwuñu parce que loolu état Sénégal sax waaye ñoom. mais état man xam nga man lu may bañ a dégg mooy. Mm. bu ñu waxee ñu ne état yow boo jotul ci état maire mooy état. Mm. mais pourquoi pas maire moom ci moom mu wax ak état man foofu laay waxee. Mm-hmm. parce que soo gisee ma ne état Sénégal parce que ONAS ñoom mun naa wax ni maire moo leen mën a gën a pousser pour ñu ñëw. Mm-hmm. kon li nga wax noonu dama koy nangu waaye nag boo gisee ONAS ñoom war nañoo mënoon a ñëw. Mm-hmm. su dee seen liggéey la ñuy def boole yemalee ñu comme yeneen communes yi yemalee ñu comme yeneen communes yëpp. ñu ñu ñu ñu liggéey. maanaam commune bi mais nag ONAS du fi ñëw UCG yaakaar naa ni moo tane si commune bi ndax UCG rek lañ gis loo xam ni si mhm. domaine état la moom suñ ko woowee mu ñëw wala yenn barab yi ñoom dañ ciy def li leen léegi léegi yow lan nga gis ni moo waral ba ñun munu mënuñoo jote ci ONAS mhm. parce que commune lañ kon comme commune yëpp mhm. lan moo tax ñun mënuñoo ONAS mënu fee ñëw pour pour mën ñoo jàppale ci yenn yi nga xamante ne ñun tële nañ ko loolu maire bi moo moo moo incompétent maanaam moo lajj ci loolu wala lan mooy problème bi. man mun naa ko jàppee ni maire taxawaayam. moo des moo des ba tax mm-hmm. euh, ñooñu respecté wuñ ñu. Mm-hmm. naa ko jàppee loolu ñaareel mun naa ko jàppee maire a xam yoon bi nga xam ni fa la war a jaar pour ñu ñëw. moom la jaarul. Mm-hmm. mun naa ko jàppee ni état Sénégal comme ñàkk respecté bi ñu ñàkk respecté noor. mooy dox ba ni que ni ñëwuñu. Aïcha mu ngi noonu Alpha Diop la am ci seen émission. Mhm. Oh, ok. Mhm. Azurut parce que barki Demba Ndiaye Azurut. Mhm. muy tali caaroy bi dem poste caaroy. dafa nekk loo xam ni tali boo xam ni du tali ginnaaw raay noor kase. tali caaroy kase ndax ñun ak caaroy ñoo ko sekk. intercommunal la. mais tali la boo xam ni maanaam ñëpp la kii nii. ñëpp la itteel waaye kii nag yëpp. kon loolu noonu waruñu woon a sax xaar ñun ñu si def ay jéego ba tax ñuy ñëw di ñu di saa su dañuy ñëw ba azuru maanaam février. Mhm. deux mille deux mille deux mille vingt deux la ñu toog ñu xamal ñu ni le 31 décembre dinañ commencé tali bi. 31 mhm. décembre lañ ñu jox ni dinañ ko commencé parce que li tax waxuñ ñu woon sax ay première ak yooyu nee nañ bëgguñu ñëw wax jour muy dañ mais 31 bi dinañ ñëw. defar ko mhm. 31 décembre ba tey jii maanaam léegi ñu 31 décembre jotaat. Mhm. léegi mu mat un an ñëwaguñu. Mhm. te bu ñu génnoon ne dañuy def dara ñu ne maanaam dañuy dañuy def loo xam ne. Mhm. kenn du ko def ak yooyu mais nag ñun saa su pare nañ ci pour lépp. commune bi moom ñu jaral nañu suñu bakkan yi parce que fi lañ juddoo yaroo fi dem ba am fi ay njaboot. kon dañuy jaral lépp. parce que ëllëg suñuy njaboot dañuy amaan njaboot. dëgg war nañ leen defal si commune bi loo xam ni bu ñu bu ñu demee ba màgg dinañ xam ni seen seen i bàyyi nañ seen waar si commune bi. Mhm. parce que bassin bii nii waa CSE ñoo ko ñoo ko ñoo ko géré mhm. def ko. Mhm. mais bassin bi léegi mu am cinq ans boo xoolee depuis boobu ba léegi. travaux yi mënut yegg. xëy na ci dinaa ñëwaat ci bassin yi incha allah waaye bu ko defee rek dama leen di fàttali ñu ngi toogak ak Alpha Diop président commission assainissement waaye tamit yore lépp loo xamante ni mooy wàllum éclairage public fii ci commune bu Guinaw Rails Nord waaye Alpha tamit ñu wax tuuti ci li nga xamante ne nii remarqué nañ ko depuis que maire bi falu ñu def ko président euh, wala waa président bu marché poisson. naka nga gisee rareté bi nga xamante ne ni am na ci commune bi parce que dafa mel ni sax moom nekkatul maire commune bi loolu nan ko gisee en tant que conseil municipal. waaw parce que boo xoolee. Mhm. Euh, li ñuy wax rek xam nga président. Mhm. Macky Sall wala ministre am biñ bi ñu demee ba génnee décret. Mhm. par rapport marché poisson. mu ne war suñu maire marché poisson la féetee. moo ko yitteel. mën nañoo jàpp ni ko gën man damaa jàpp ni moo ko yitteel ndaxte à chaque fois bu xëyee fa la jëm waaw fàtte na maire bi ko fal wala commune bi ko fal maire pour le moment marché poisson moo moo moo ko gën a itteel hmm. rawatina nag nekk nañ ci ay travaux mairie hmm. parce que bërki démb rek ñu ngi ciy waxtaan hmm. parce que si wàllum masturbation ak euh, mairie bi. Mhm. ba mu xamal ma ni travaux yi nekk si euh, mairie bi mairie bi commencé nañ travaux yi. ayca mu ngi noonu kooku moo nekkoon tey alfa Diop nekk président bu euh, commission assainissement waaye tamit yore lépp loo xamante ni wàllum éclairage public la fii ci commune bu Guinaw waaye Alpha Diop ba léegi dañuy continuer ñu gis ni aussi. en tant que conseil municipal ndax fan yii gis nañ centre commercial bi nga xamante ni moomeelu Guinaw Rail la ne toppatoo bi ci war gisuñu ko ci lan nga ñu mën a wax ci loolu en tant que conseil municipal ndax tey jii nii lu ci bari yow laa koy adressé mm. parce que mën naa ne yaa fi nekk taxawaayu maire. waaw centre commercial bi moom ñun moom dañuy wax ni suñu moomeel lañ fa gis moom gisuñu ko fenn. Mm-hmm. parce que centre commercial boo xam ne ñun ñoo ko moom mu nekk suñu moomeel. Mm-hmm. ñu dem bay gis ay nit yoo xam ni di di saw di saw si si si centre commercial boo xam ni ñun suñu moomeel la ñu fay saw. Mm-hmm. xam nga loolu noonu maanaam. dafa nekk loo xam ne man dama jàpp ni sabotage la. Mhm. parce que même bu fekkee ni que ni loolu du cadre maire du cadre président cadre ñun la. Mhm. man loolu moom dama koy adressé ñun ñi nga xam ne ñoom moom. Mhm. laa koy adressé. li nga xam ne nag dama koy adressé maire mooy li nga xam ni éclairage bi fa des. mooy pour mu leer wala directeur général bi. DG bi éclairage bi centre bi warut a am fu lëndëm. mais balaa ñu ñëw ci affaire de éclairage maanaam ci wàllum hygiène bi fa laay des ba léegi ndaxte bu demee ba fi nga xamante centre commercial la fa jaay nit ñi fa dugg ak yéeg di wàcc maanaam lan moo waral nit ñi di saw foofu dafa amul ay toilette wala DG bi surveillance bi ci war moom la amul parce que yaakaar naa bu fekkonte ne am na surveillance bi euh, fa dem di fa di fa di fa di fa tuur ndox fa def yeneen est-ce que nekkul ni surveillance bi moo des wala sécurité santé bi. waaw loolu dama koy surveillance bi laa ko jàpp man. Hmm. parce que du question la ne mais dama jàpp ni surveillance bi la parce que centre commercial am na ay mm, mm, mm. maanaam mais surveillance bi laa jàpp ni moo des ba tax DG bërki dem waxtaan nañ ci. Mm-hmm. si wàllum caméra surveillance. Mm-hmm. ñu def ko si centre bi xamal na ma ni yooyu def nañ commande bi ba pare. Mm-hmm. kon yaakaar naa ni loolu bu bu caméra ñëwee wàllum loolu mun na saafaraw. bu dee toppatoo toppatoo nañ ko ni ñu ko war a toppatoowee. si wàllum hygiène bi moom mun na saafaraw ñaareel bi nag mooy li nga xam ni. si wàllum centre commercial bi ba tey. Mhm. gis nañ fa ay cantines yoo xam ni. si mhm. suuf parce que euh, centre commercial bi centre bi dafa fee fees na instant yii nii. maanaam mhm. amul amul benn kees boo xam ni nit jëlu ko. mais centre ba boo fa demee ñetti kees ngay fekk ñu tijjee ko. yeneen kees yëpp. ñu ne ay ay dañ koo tëj ay dépôt la yooyu noonu même bu fekkee ni que ni. dañuy lijjanti centre bi sotteegul si diggante maire yi fi nekk ak yi nga xam ne ñoo fi jóge même buñ koy lijjanti war nañoo mën a def décret boo xam ni mhm. centre commerciale bi yi si suuf ak ya sa topp ku bëgg dépôt dem ba ca kaw bu dee mënta ñàkk Mhm. nga échanger sa cantine yóbbu ko sañ kaw a kaw a kaw mhm. yësa suuf yëpp yi ñu tëj yëpp ñu changé ko ay ay ñi nga xam ne dañuy jaay mhm. parce que centre bi dafa war a dund mais que centre boo tëj di yéeg si kaw am na ñoo xam ne mënuñoo yéeg te amul ascenseur kon escalier ni ñëpp si mun a yéeg am na xale yoo xam ne sama zaar yi mënuñoo yéeg si ay escalier faw ñu jàpp leen kon maanaam centre bi c'est normal ñu jël cantine yooyu nga xam dañ ko fermé ñu jël ko jox ñooñu nga xam ni ñoo ko moom dañu fermer ñu jox bu dee dépôt lañ ko bëgg a def ñu yóbbu leen ca kaw a kaw a kaw. Mhm. jël centre yi euh, cantine yi ñu yi ñu tijji liggéey ñu suuf ñu liggéey ak yi si topp pour cantine bi euh, centre bi mun a dund. Mhm. loolu man moom sama sama sama. mun na ñëwaat tuuti rek ci éclairage bi nga doon wax ci centre ci centre commercial bi. Mhm. éclairage bi am na loo ci doon bëgg a souligner sànq. maanaam lan nga ci bëgg a wax ak maire. éclairage bi. centre ba xool ko. mais dama gis éclairage bi maanaam doyul ci centre bi. Hmm. parce que guddi gi da ngay ñëw fii lëndëm fii leer nga gis ay lamp yoo xam ne même bu dee am na bitig bu mu takk lool mu tijji sax mais lamp ba war a tàkk parce que nekkul bitig yi ñoo war a leeral lamp yi. marché bi lamp hmm. spécial yu war a leeral marché bi. Hmm. bitig seen place la ñuy leeral. mais da ngay gis yoo xam ne tàkkul ak yooyu noonu. jot naa ci waxtaan ak DG bi comme niñ koy waxee. mais xamal na ma ni. maanaam centre bi daa amul budget centre bi budget la amul. mais est-ce que budget boobu noonu nekkul ni ci centre commercial bi fa la war a jógee wala am wala ci mairie bi lañ koy xaar. waaw man nag xam nga comme maîtriser ma ko à cent pour cent. mais dama hmm. ciy wax rek li nga xam moom laa si jotoon waxtaan ak li ma hmm. ci expliqué. Hmm. mooy maanaam naa ko ni ba xam centre bi budget bi xaalis bi si centre bi la war a jógee mu ne ma centre bi lu dul maanaam li nga xam ni mooy douche yi toilette yi dafay génn ak ñiy gaaree foofu noonu li fay génn. Mhm. loolu moo nekk li nga xam ne rek la defaat si centre bi. Mhm. te loolu maanaam tamit bu dee li xeer na ko yaakaar naa ni mënut a defar centre bi. ya mhm. ma fa gis man jafe-jafe loolu mënut a liggéey centre bi yëpp. waaw kay jërëjëf moo nekk noonu Alpha Diop euh, comme ni ma ko waxee woon sànq rek nekk suñu invité waaye ba léegi dañuy wéyal ndaxte li ñu war a waxtaanee bari na waaye li olof Njaay di wax naan li duñ ci ci nag bi xajul ci cin li waaye tamit ñu bëggoon xam seen relation ak euh, maire yi nga xam ne jot nañ fay jaar du ma sori damay ñëw rek ci ki nga xam ne mooy maire sortant Pape Niambé ñi la mooy seen relation yi ñaar. waaw Pape Niambé bi fi yàlla dogalee mu nekk fi. Mm-hmm. doon Mm-hmm. mais yàlla dogal na si wàll joojo Ndiaye lañ ko eggalee. ci la sottee. Mm-hmm. waaw ndax des na sax. Mm-hmm. waaye gis nañu tamit liggéey bi yàgg na te askan waa ngi tiit bu taw bi ñëwee fu ndox bi di jëm. mais est que mën ngeen dalal xelu askan wi nga xam ne ñoo leen di seetaan tey. waaw dalal xelu moom. man comme li may wax chaque jour rek. am na loo xam ni man nekkul ni damay génne sama xaalis def ko si. ndax aw ma xaalis bi mën a defar ba ndox mi yëpp mais ñëpp naa leen assuré ni que ni. nawet du am ndax lépp dama koy wékkaat xam ni moo ma sant liggéey maire Valdiodio Ndiaye xamal nañu ni am na tractopelle bu war a ñëw. Mm-hmm. di jóge ministère. incha allah parce que lundi bi lañu ñu waxoon sax. Mm-hmm. mais xamal nañu waan ni kooku woo nañ ko mu xamal ñu ni nañu xaar fii ak suba. Mm-hmm. mardi bi incha allah machine bi bu tawul dina ñëw. kon loolu rek laay joxaat askan bi xamal leen ni machine boobu bu xasee ba ñëw moom. li nga xam ni liggéeyu machine bi la yëpp. dinaa fexe man ñu ñu def ko ci. balaa machine bi di dellu. <laughs> ok mais si kaddu wal joojo Ndiaye rek laay waxee pour ñëpp di xam ni. Mhm. samay kaddu du samay kaddu me si mhm. kaddu monsieur le maire comme damaa taxaw comme. taxawaayu monsieur le maire taxawaayu monsieur le mhm. kon si kaddoom laay waxee. waa di remercier waat ñëpp rek. Mhm. ay a xam naa ne foofu la ñuy ndar képpee émission bi euh, ci sunu invité bi nga xam ne moom lañ dalal tey muy Alpha Diop nekk président bu euh, commission assainissement waaye tamit yore lépp loo xamante ne mooy wàllum éclairage public Alpha Diop balaa may tëj rek dama lay jox nga tàggatoo ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan. waaw xanaa kañ di santaat yàlla rek. Mhm. di jël julli si yonent bi. waaw di santaat Serigne Touba a baax a baax. Mhm. di remercier waa ginnaaw raay noor ñoom seen i ñoo ñu jox seeni i mhm. ñu taxawal leen si maire bi mhm. kon saa su ne rek ñoom si li nga xam ni moom lañ bëgg si li nga xam ni moo gën si commune bi si loolu rek la ñuy taxaw mhm. di leen ñaanal jàmm te di leen ñaan ñu ñaanal ñu nawetu jàmm ak salaam ba li ñu yor si nawetu ren bi ñu ñu ñu am si résultat bu gën parce que buñ ko amee rek ñëpp a ko am parce que du du moo am wala waaleekam wala keneen a am mais bu ñu amee nawet bu baax rek ñëpp ñoo ko bokk. Mhm. parce que yàlla dogal na commune bi ñoo ko bokk kenn mënu koo partagé kenn mënut a dem bàyyi sa morom kon nañ ñaan rek. Mhm. yàlla ñun ñëpp yàlla defal ñu jàmm. allahumma amiin ba nga xam ne liñ bëgg suñu commune ñu am ko ba mu daal mhm. commune yëpp. jërëjëf moo nekk noonu Alpha xam naa ne balaa may tëj léegi dama lay yóbbante ci monsieur le maire Waly Ndiaye nekkoon na bàyyiwaat xel ginnaaw raay askanu ginnaaw raay ñoo ko fal. nekkul ni dañ koo fal pour marché poisson mm-hmm. waaye ginnaaw raay moo tax loolu yëpp ñëw mm-hmm. kon na leen bàyyiwaat xel bu baax a baax xëy na nag maa koy maa koy wax waaye askanu ginnaaw raay yóbbante loolu mm-hmm. dañuy wax sax ni monsieur le maire ba mu faloo ba léegi doo dox ba teg ko bët doo ko fekk mairie doo ko fekk këram kon loolu tamit wax dëgg neex yàlla monsieur le maire boo jotee ci vidéo bi nga xam ni askan bi dañ laa fal ngir ginnaaw raay kon nag ngalawaay rek liñ la falee def ko ba bu tamit ñu mën laa euh, waxal loo xamante ni tubaarkàlla macha allah maire bu nekk bëgg ko ci jëf ju rafet jërëjëf